abonné leen ci chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin te activer cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngeen di ko mën a jot ca tàng-tàng ba tàng mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bii di yaatal xeltu yin ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu xaq di leen baal di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu boole ñu baal di am mbégte di fas yéene ànd ak yéen ci séddoo loo xam ne yaakaar nañ ne dina war soxal ñenn ñi tamoo di ab sëy nan lañ koy istixaare nan lañ koy seete ngir mën a xam dina baax wala du baax maanaam daal góor gi day bëgg ku jigéen ki te dafa am yéene denc ko soxna bu ci yàlla àndee taxamul ba xam moom góor gi dina jik ku jigéen ki wala ku jigéen ki dina ko jik ndax seeni wërsëg dina dëppoo wala déet loolu nag anam yi ñu koy seete bëri na kenn ku ne ak la nga xam kenn ku ne ak li la jibu ñu fas seeni cee tànn nag benn anam tey di ko jéem a séddoo ak mbokk yu baax yi moo tax ñu tudde ko istixaar pour le mariage muy nu ñuy seete sëy nan la mu ne on fait suifre le prénom de l'homme et le prénom de la femme sans les noms de famille on les additionne et on y ajoute le chiffre 7. Et ensuite, on fait la soustraction par 70 si c'est possible, sinon par 9, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul chiffre de 1 à 9 qui nous donne le résultat de l'istixaar mbokk yi ngir set ab sëy nu def dañuy xool turu ku góor ki bëgg jigéen gi num tudd ak moom ku góor ki ku jigéen gi muy ki muy bëgg ku jigéen ki muy bëgg nu mu tudd su ko defee ñu adat leen maanaam ñu adat turu ku góor ki ba xam turu ku góor ki ban nombre la amee ban lim la amee waaw dañ koy adat par araf araf bi lii la taxaw araf bii lii la taxaw araf bii lii la taxawe nga daal di koy boole nga additionné ko boo ko boolee am na nombre bu mu lay jox boo ci jógee nga adad nag turu ku jigéen ki xool lettre yi composé turam araf yépp nga ne nga ne lettre bii nombre bii la taxawee beneen lettre bi nombre bii la taxawee beneen lettre bi ba araf yépp mat lettre yépp mat nga additionné lim boobu su ko defee kon am nga nombre ku góor ki ak nombre ku jigéen ki muy turu ku góor ki ban lim la amee turu ku jigéen ki ban lim amee nga daal leen di additionné mooy nga boole leen nag seen ñaari lim yi boo ko additionné nga daal di ci yokk juróom-ñaar muy nga plus ci sept boo ci plusé set nag nga commencé nag di moyen di moyen maanaam di moyen par quatre vingt muy su fekkee mën naa moyen par quatre vingt loolu mooy bu fekkee ëpp na quatre vingt waaw waaye su fekkee nag dafa yées quatre dafa moyen quatre wala mu doon quatre rek yem ci su boobaa doo moyen ti par quatre mais da ngay moyen par neuf waaw même su fekkee dafa ëpp quatre vingt muy juróom-ñeent fukk nga doon moyen par quatre vingt dema dem ba li ci des mënatuta mënatuñ cee moyen quatre-vingt-dix da ngay bàyyi quatre vingt itam di moyen par neuf ala kulli xaalin boo koy defee nii dinga dem ba mu des benn chiffre dong dong dong te benn chiffre boobu faawu day doon li ko dalee ci un ba neuf un ba neuf muy benn ba juróom-ñeent benn chiffre boobu nag moo lay xamal istixaar bi lan lay wane moo tax ma ñëw ci firi istixaar bi firi istixaar bi bu desee un li muy tekki mooy say bi mën naa baax de mën naa am njaboot waaye dina tas mën naa baax muy xëy na ay ñàkk wërsëg ak bakkan buy dem ak yooyu xëy na du ci taxaw mën naa baax njaboot mën na ci am waaye nag day tas muy un bi deux bi li muy taxawee mooy bu desee deux rekk mooy sëy bi baax na de waaye rab am na ci am na rab dina bari xuloo te njaboot du ci yomb donte nag sëy bi mën naa bañ a tas mën naa wéy ba faaw bu desee trois li muy wane mooy sëy bi njalbeen ga day naqari waaye muj ga day neex njalbeen ga muy commencement bi début bi day naqari waaye mujj ga fin ba day neex euh, bu desee quatre mooy euh, sëy bi bu amee sëy bi bu amee itam faaw am ku ci ñàkk bakkanam faaw am ku faatu te li gën a bëri góor gi lay doon li gën a bëri góor gi lay doon loolu mooy bu desee euh, quatre mooy daal faatu moom mënta ñàkk waaye faaw daal am ku ci gàtt fan ku ciy teel a dem te li ci ëpp góor gi lay doon mooy bu desee quatre bu desee cinq nag mooy sëy bi dina am njaboot am alal cinq baax na dina am njaboot te dina am alal waaw bu desee six mooy sëy bi dina bari xuloo waaye alal dina ci am dañu mel ne Maram ak Biraan di xuloo ko juboo rek waaye nag gàttu wërsëg du ci nekk alal dina ci am te euh, gudd fan itam mën na ci am waaw kooku mooy siis bi bu desee seet nag mooy euh, sëy bi dina am wërsëg sëy bi day ànd ak wërsëg njaboot da ci am gudd fan da ciy am lool ci ku góor ki ak ku jigéen ki ñoom ñaar ñëppay gudd fan mën nañoo dem ba am quatre-vingt-dix ans wala lu ko ëpp wala lu ko jege waaw te njaboot gi itam dañuy toog maanaam ñi ciy teel a faatu du bëri de bu fekkee dana ci am itam a ah, du bëri dee njaboot gi daal dañuy toog te dañuy am barke lu ñu yóotu jot ko ci kàttanu yàlla loolu mooy set bi set bi day mel ne moo ci dàq ndax sëy bi day am wërsëg njaboot da ciy am ku góor ki gudd fan ku jigéen ki gudd fan njaboot gi ñi ciy faatu du bëri dañuy toog te dañuy am barke ah set bi moo gën de set bi moo gën tege ci cinq bi Euh, bu dee huit la des nag mooy sëy bi baax na de waaye day bëri coow sëy bi baax na day waaye day bari coow ñoom ñaar ñuy xuloo rek ak nit ñi di leen ŋawti ŋawtee waaw bu desee neuf mooy sëy bi baaxut sëy bi baaxul dina jural góor gi ñàkk liggéey bu amoon liggéey dañ koy dàq waaw te day ñàkk jàmm bu amoon jàmm day ñàkk jàmm bu amoon xaalis day ñàkk xaalis bu wéroon day ñàkk ak wiram di feebar di tawat rek te sëy bi itam day tas day tas incha allah defe naa ne neuf bi moom moo ci gën a gën a gën a gën a doy waar neuf bi moom moo ci gën a doy waar tege ci kaat bi nag tege ci kaat bi waaw ndax kaat euh, bi itam ginnaaw bu sëy bi amee faaw bakkan dem te li ci ëpp ku góor ki lay doon moom itam lu doy waar la mbokk yi yii nag euh, yu ñenn ci borom xam-xam yi di waxtaane la ñu ne woon nañ ko indi rek séddoo ko mbokk yi donte nag yàlla rek kay dogal te xëy na bu ñu seetee say gis ci lu xaw a ñàng mën naa am du ñàkk ay sarax yu koy fànq ak yooyu mbokk yi dañuy taag taxawandi fii di leen ñaax ngeen abonné wu ci chaîne YouTube bi di yaatal xeltu yéen di bàyyi xel waxtaan yi di commenté di amee ndax fi la njëriñ yee gën yaatalu jaa